noo mën a mën muñ yonent bi moom moo ñu gën ñun ñi ñëpp yonent bi mësul bëgg a xeex mësu koo bëgg waaye koo puus ba mu sës mu jóg jàmmaarloog yow loolu tax mu génne jaasi dem xeex comme ñëpp man de ñi nga xam ne fukki bakkan ak ñeent yi nga xam ne rot na ci mois de mars ñun gënuñu leen waruñ ñoo gën a gore te projet bi ngi bi ñu gëmoon ba tax ñu génn buñ ko sàgganee ba ki def li mu bëgg kon ñun dañoo gore mag ki Sall na xam ne dinañu xeex ak moom na dem jënd ay armes Israël na dem jënd ay arme Ukraine na def lu ko neex waaye su delluwul gannaaw dinañu xeex ak moom te nag bu leen ci déglu kenn ku leen naan da ngeen violent wala da ngeen bëgg fitna parce que fitna bi kenn ko yor Sénégal mi ngi mooy Macky Sall est-ce que pare ngeen man maa leen wax lii bu dee pare ngeen te Macky Sall ne fi mu nekk lay nekk du yeggali mandaam 2024 du ko fi fekk may wax nag waa APR ngeen déglu ma bu baax waa APR li ngeen nekkee ci dëkk bi dina jeex de ndax ñun ñoo bokk dëkk fii koñ bii boo fi duggoon balaa koñ bi di jeex responsable APR mi ngi fi dëkk fi lan la ñu yabee ak lan ñuy fontooy parce que jàpp nañ ñoom ñoo nguur rek nañu xam ne bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc bu ñu yaakaaree ni ay ndawu Pastef ndawu opposition ndaw yeewi askan rek ñoo ci ñàkk seen bakkan wala lañ ciy tëj kaso juum nañu de gàtt sa gàtt sa rek léegi gàtt sa gàtt sa gàtt sa gàtt rek bu leen neexee bu leen neexee nañ ko tuddee appel à insurrection man Ousmane Sonko maa ko wax gàtt sa gàtt sa rek dootul demee noonu jeex na tàkk